ñu nekk ay ndaw yu fare fii ci plage bu Saly di fi daan seen doole seenub liggéey lépp daal taxaw li ko waral di pandémie bu Covid 19. liggéey bi nga xamante ne daal ñu koy jàng ba mu màcc ñu ciy daan seenub doole ay moto de mer li ñu jël dugal ko ci géej gi. di ko dawal tey ji nag dañuy xëy suba ba ngoon duñu gis benn client. avant corona moo gënoon a tane que instant yi quoi parce que instant yi moom lépp dafa taxaw gisuñu touriste gisuñu dara quoi parce que boo xoolee plage ni doo gis kenn yaa rien ñëpp muy jaaykat beeg dawalkat jet beek luweekatu bato beeg dawalkatu quad bi ñëpp a ci yam quoi instant moom dañ gis nga jet dañ ko wàccee ba ne rek sax pour rien que attirer quoi mais yaa rien. ah nguur gi kay nguur gi xam na corona moom ñu si gën a sonn mun naa la ne wàllum tourisme ñoo si gën a sonn. parce que avion wàccut frontières yi lépp lañ tëj quoi te ñun moom buñ tejee frontières yi rek ñun dañuy dee voilà xam nga ñeneen sax dinañ xaw a def seen i business ak yooyu noonu mais ñun si tubaab yi lañ yaakaar ak gars yi jógee extérieur quoi voilà. liggéey fi mu nekk nii franchement sonn nañu trop trop trop trop depuis au mois de mars aujourd'hui ça fait quoi ça fait sept à huit mois liggéeyuñu defuñu dara et puis en plus euh, ñun ci place bi la ñuy dépendre. c'est-à-dire on n'a pas defal nañu ci hôtel ci plage bi mooy ñuy ramba ñu ci bugg euh, fort ci ñoom la ñuy euh, yëngu quoi à part ça y donc euh, actuellement gis ñu kenn si si nekk au niveau les ko mooy le Sénégalais ñuy jógee Dakar ñëw fii ci ñu la ñu y a rien. Regarde, regarde le restaurant, le restaurant, il n'y a rien. a rien. que les gens qui viennent manger, ce qui qui ñëw ñu la ñu yaakaar xëy na bu ñu la euh, añee wala reer nañu ñëw defa ci ñun dara mais fu mu nekk nii yaar a depuis feebar bu mu amee depuis bu mu jógee feebar ba léegi euh, man maa ngi yore ay reer yore ay reer yoo xam ne bon même au niveau de ma vie. sama salarié yi dama mujjee wàññi salarié yi donc à défaut du des mois Euh, maa ngi employé cinq euh, employés c'est une entreprise euh, s'appelle Jentewul Loisirs donc actuellement fu mu nekk nii ñaar lañu mooy gardien bi ak sama doom bi avant Covid bi la gëj a ni moom mun nga xëy si lundi ba samedi dara du dox en général dimanche bi mooy ëpp. non non client yi dara ñëwul instant nii dara ñëwul gisuñu kenn gisoo. parce que mënuñoo toog suñu kër quoi loolu moo tax tooguñu mais bu ñu mënoon toog moom ñun ñëpp dañuy toog instant dañuy xëy si fii rek dañuy xëy si ñëw toog jënd suñu ataaya naan ba ngoon après ku nekk demaat bi xaaraat suba affaire bi moom instant dafa dëgër trop trop trop sax état bi kay instant ni kay gars yi dañoo wax ba sonn wax ba sonn wax ba sonn dañoo dem ba à xamatuñu lan la ñu war a def sax lan la ñu war a wax sax parce que état bi moom moom mu ngi gis lépp te instant ni moom mu ngi xool mu ngi gis xam na lépp nu muy demee. mais dañoo mujjee toog ñu seetaan nii rek quoi sonn nañ nag bu ñu sañoon ñu jàppale ñu quoi. voilà mbokk yi ñoo ngi fii nga xamante ne nag moom mooy plage bu Saly ba tey ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy yor eh, lii di scooter yi di dem ci géej gi mu nekk ay trajet yoo xamante ne mën nañu dem Somone eh, sali fii nga xamante ne moom mooy Mbour eh, fépp la ñuy dem ci géej gi di fa yóbbu ñi nga xamante ne ñoom ñooy touristes yi ñu daal di découvrir ñu ngi ak kenn ci ñoom ki nga xamante ne nag moom mooy Charles nekk doom ci pa bi nga xamante ne ñu ngi ko doon jël sànq muy Eugène Charles ñu ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay Euh, euh, yaa ngi waajal dem ci fi nga xamante ne moom mooy géej gi sa activité est-ce que mën nga ci dellu siwaat jamono ji euh, waaw dinaa si dellu siwaat tuuti donc ñun ñu ngi def li nga xam ne moom mooy location de de mer donc fii ci plage bu Safari bu Saly voilà donc ñu fii depuis 2007 ba léegi. parce que actuellement dañu gis que ni li nga xamante ne moom mooy plage bi dafa wéet gisuñu benn touriste lan moo waral loolu. Ah, effet corona bi la <laughs> waaw corona bi moo waral lii nii quoi. corona moo ko waral. liggéey bi dafa wàññeeku carrément amatoo leen ay clients. dafa wàññeeku bu baax kay. te dafa mel ne ñii di nit ñu ñi faralu faraluñu di euh, def genre activité yi. Euh, waaw ñii di ñëw nii dafa nekk euh, ay résidents rek ñoo fi nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo fii nii asal parce que touristes yi tax ñi naan touriste dañ leen bloqué seen seen réew donc de ce fait ñi nekk fii donc xam nañu réew mi fii lañ dëkk daanaka fii lañ dëkk Sénégal donc liggéey bi xaw naa taxaw trop. ak Covid bi nii instant bi ñu naan wàllum tourisme bi daal wàññeeku na de trop souvent Sénégal waaye daal ñoo fi nekk ak waa Dakar yeeg ak waa Thiès ñun daal ñoom ñoom ñoo fi nekk di ñëw sangu si piscine affaire yooyu souvent ñu loué jet ski def balade Somone Mbour Ngaparou Popenguine après ñëpp loolu la def quoi mais fii tamit souvent dañuy am moins de clients quoi. Ah. avant euh, ñaata euh, passage ngeen doon def par jour ak euh, moment bi ñaata ngeen di def. waaw ah, bëri na bëri na bëri na trop avant moom bëri na trop bëri na trop mais instant bi moom daa wàññeeku du trop trop trop souvent weekend bi dañuy am benn ñaar ñett mais souvent samedi bi tamit ah day tane daal maanaam day tane que par rapport ak avant daal. ñu ngi ñaan yàlla tamit mbas mi jóge fii ñëpp delluwaat seen activité bu mun a ñu mun a demaat Somone Popenguine Mbour waaw ba Dakar ba gore tout ça xam nga rek fii moom nee nañ liggéey moom bu amul moom après day feeñ ci ñëpp daal day feeñ ci ñëpp te instant bi mbas mi moom ci ñëpp la feeñ daal liggéey yëpp a bloqué kenn demul fenn kenn mënut a dem kenn mënut a digg hmm. ñuy ñaan tamit lii ngi nii nii muy lii ngeen def nii tamit affaire bu rafet la bu tamit découvrir lu xew ci dëkk bi ñëpp mun cee jot information yi